Da-da-da! wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki auditeurs ak auditrices yi déglu ñaari sit internet yi nga xam ne mooy de DSS TV ak Xam sa Diine TV ñoo ànd liggéey liggéey bu rëy ci màggalu Daaru Salaam gi ñoo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp noo ngi fii nag ci waañ wi nga xam ne bu nu fi jógee murit di bari daa ñu bég ndax mooy barab bi nga xam ne fi la ñuy mën a amee saako ndax saako bu taxaw du def dara ñu ànd ko ak mbokki jullit yi ak mbokki taali sëriñ bi yaa ngi en direct Khamsadine TV ak DSTV asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ci présentation gi Serigne Mbaye Niang jàmm gën jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou suñu sang ba ci Daaru Ndiaye yàlla fi yàgg loolu te ànd ku wér ah, sang bi tedd bi ñu ngi lay siyaar baax kon yéen ñi safoo DSTV ak Khamsadine TV macha allah comme ni ko waxee ñu ngi ci Daaru Salaam kër Serigne Mandiaye Diop di jàmbaari maam Cheikh Anta di jàmbaari Serigne nett nañu ci histoire lu bare bare loo xam jaajaaram ci ànd na ko moom Cheikh Anta ànd ko ak Serigne Touba ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni mu ngi koy liggéey tey ñu ngi fekk ak yi nga xamante a la ndax kër gi bi fi ñëwee gis am na jaar na yoon te it loolu day day ñooy safoo DS TV di safoo xam sa diine TV pour ñu xam lan mooy liggéeyu Daaru Batoor Seck soxna Batoor Seck yaa jëriñu soxna yi auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ñu sant yàlla suñu borom bu baax di julli ci yonent bi teet bi salallaahu alayhi wa sallam di ñaanal Sëriñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi lool te wér di ko ñaanal mboolem jullit yëpp ah di sant suñu borom bu baax ah, bin ma tànnee def ma jawriñu jigéen ñi nga xam ne ñooy jawriñu jigéen ñi Alaaji Mun Njaay Jóob di ñaan Sëriñ Alaaji Mun Njaay fa mu tëdd yàlla na sedd ak mboolem booy daw lu jut ah ci bisub màggal Daaru Salaam ndax Daaru Salaam moom macha allah moom lu fi waay def rek doyut ndax mooy dëkk maam Cheikh Anta ci maam Cheikh Anta macha allah ku ne ku ko xamul ci dégg nga ko ci jëf ju baax ak def lu baax. macha allah yaay booy. macha allah suñu yaay yi sama bëtóor suñu bëggoon a xamoo cuisine bi ah liggéeyu cuisine bi fu mu toll ko mbane yi ci limban lim la ak gàtt ak nan ngeen ko glisser ak tàngaay bi. Mm, waaw di am kontaan baax a baax ci 2STV yi ndax liggéeyam rafet na macha allah ndax heure bi daaw ñoo ko àndoon ca ban ko àndeet bi màggal gi jàllee am nañ kontaan bu baax a baax ndax ah, waañu moom ñun ñi ñooy jëwriñu waañ bi ñun jigéen nii ah ñu ngi toll ci ñaar fukki mbana yoo xam ne yu ceeb la ak ñaari mbanay soos bu ko yàlla woolee bu ma daan toggal ñaari fukki mbanay yoo xam ne tufe lay doon ak ñaari mbanay mbaxal ngir bisub sëñ Alaaji mu Njaay Jóob bi ak bisub Maam Seex Anta bi. ñaar fukki mbana nga wax. ak ñaari mbanay soos ak ñaar ak ñaari mbanay soos. loolu loolu li ko dogg ci gàtt moom du juut loolu ñaata gàtt nga xayma ni moo ko war a defar. macha allah tabarkalla macha allah def nañ fi ñetti nag ak benn gëléem démb nga xam moom la doon waajale bis beet muy suba la maaga rey nañ fi nag wax dëgg yàlla toogaat fi ñeenti mbanay ceeb te ñu toogaat ñetti mbanay reer te lépp ay benn yo xamné luñ lu xeeb la di ñaanal suñu jëwri nak sëñ Amdi Moustapha mu yàgg fi lool jóob te wér bu fi yagge rek lépp dina baax ndax mom ko ànd ak mom boy ba sam xel dal ndax yoonu Serigne Touba mom sol na dàllam na ndiggam ba kenn mënu ko ci ba fi ne fo dogu ci Touba gi fu sëñ Amdi nuyoo fu ne ku ñu xamé lé doon te lépp taxawaayam am moko waral ah de sant nag Bas ndjay mi nga xamné mom ma sha allah yalla na yàlla fal cet ndax yeey tamit gis na sa taxaway ci kër sëñ bi bu sëñ bi woté tëj nga sa place dagg nga sa yem sa yitte yëpp ngir bëgg rek bis bi taaru yàlla na yàlla yàggal taxawaay bi ci sa yaram te dool la xewal ak mboolem ñi nga àndal ñëpp barke sëñ Tuubaa am nañ kontaan bu a baax jërëjëf jëwriñu kër am Amdi Diop daare bu ndaw bi di siyaare mbooleem taalibe yëpp fu nit mën a bàyyee ko ci biir réew mi bitim réew yëpp ñu ngi lay siyaare bu baax a baax te di leen ndokkeel bu baax baax ci bis bu sedd bis bu sell bi bu tedd bi ndax bis bii nii ku xam borom gaawaan xam keroog ba sëñ bi ñëw di ko di ko di ko yor fii Daaru Salaam da koo ganale ba jël doomi aadama bu ko lootal kon bis bi yaakaar naa lu ci waay def mu néew mu bari fay borom gaawaan rek nga si am kon yaakaar naa tamit bu ñu nekkee ñëpp nekk ay ndaw ñu takk am nañu am nañu liggéey liggéey bi di nekk ay ndaw yoo xam ne tamit bu dëgg yàlla neex nañoo jiite lool ndax yaakaar naa fekkute nañ ñun kese ñoo ci nekk danañ ci wéet lool waaye ñoom ñëpp ñu ngi gën seen alal li ci def koo laaj mu joxe ndax démb bi ñuy jébal daar bi kanamu sëñ bi rek la mu ko waxoon laa koy waxaat képp koo xam ne da am ab sëriñ da nga koy tiitaroo te wallaahi xasin suñu am ñëpp ànd ak moom xam nañ ne bu bu ñu xool lépp li nekk ci ab mi ngi ndax dëggu gi wan nañu ko te boo fekkee kër sëriñam gee da ngay xam ne que ni kon ñu li ñu ko defal tollu ko fenn kon li may gën a soññe ndaw ñi mooy ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax gën am pëseef gën a takkuwaay gën a liggéey ndax kër sëriñ boo fa dem taalibe ya fa nekk rek ñoo ko ñoo ko jagal kon nañ xam ne ñu ñun kër sëñ Moundiaye Diop gi moom lañ moom lañu am mboolem nag waa kër sëñ Mour Soda kër sëñ kër sëñ Seex ñëpp gone yëpp la la ànd gërëm ndax ñëpp ñëw liggéey bi ànd ko liggéey ko ak ñun ndax bu nekkoon ñun donc daru sot waaye nag ndawi waa kër Alaaji Moussa Diop gépp ñoo àndandoo ñëw ne dañuy liggéey dañuy liggéey suñu Tuubaa maam si ànd kon loolu tamit ñu am ci ak ñu am ci rafet njort baax a baax ndaxte ak bennoo rek la ñëpp wër te bennoo gi am na fii di siyaare mboolem gën a ci daara bi yëpp di leen gërëm bu baax a baax a baax ci liggéey bu sell nga xam ne def macha allah sëñ Gass ñu ñu gis ni gone euh, takku nañ loolu lim bi ñu gis ne kër gi ay kilifa yu bari nañ ci biir kër gi nan ngeen organisé woo ba xale jaar yoon liggéey bi di gis maa yi mate ko ba kenn ku ne te ko jox ma ngi ciy doxal doxal mat sëkk ban organisation ngeen am te ndax gën sëriñ moom li ci ëpp mooy ndaw ñu duñ bokk fi dëkk nan ngeen ko dinee yéen ñëpp a liggéey liggéey bu rafet bi waaw diisoo ndax yaakaar naa communication mooy doxal lépp te avant màggal gi jub si tamit kenn ku ñu war a woo téléphone ñu ngi lay woo téléphone ku ñu war a wax whatsapp ñu ngi lay woo whatsapp di la wax ne li nga xam ne mu leen bëgg rek doxee ko ndax fii woon doxee ne wenn la rek añ yaa ngi nii gars di ko di ko di ko di bu ñu yàqee dañuy njëkke kër xalifa bi ñu fa nekk añee pare ñu doog a dem kër sëñ Mourou Soda topp ko kër sëñ Jili ba kër sëñ Amdi ndax kilifa moom comme nu ñu ko waxee toujours rek man nee na moom si yëm ci boppam nee na man bala may xéewlu na kër gi kon ko xam kon kon progrès taxu koo jóg fekk na loolu moo tax jóg naan kon lépp njëkk fi mais danañu dañuy wax ne lépp lu ñuy defati nañ jox ñee ñu xeloo pare ñu doog ko andil kon koo tamit yaakaar naa képp ko xam ne ab taalibeem nga boo yàqee rek yow yaa bëgg a yàq mais kenn yàqaloowu la te gone tamit bu dëgg yàlla tamit loolu tamit am na ci déggoo baax a baax baax ndax añi bu jógee kenn ku nekk dina am koo àndal mu ne la tegal fi te loolu moo tax liggéey man a jaar yoon noonu nag lañ koy doxee di ànd liggéey bi ñëpp ba bokk euh, taalibe bu ñuy wax Cheikh Bamba Dieye nekk euh, coordonnateur bi nga xam ne mooy coordonné lépp loo xam ne moo aju ci moo aju ci fédération euh, Miftahoul Mouna Wousoul bi nga xam ne moo lëkkale mboolem képp kuy wuyób taalibe ci kër mu Munjaay Jóob man maa maa yor wàllu yi da ci jëm sama kem kàttan euh, ci loolu sax ñoo ngi jiital nuyoo ak ziyaara ci bis bu tedd bi ñu nekk nga xam ne alxuraan dafa wax ne wallahu yad'u ila daari salaam wa yahdi man yashaa'u ila siraatal mustaqiim lolou melni borom Touba suñu borom daf ko jagleel lolou ba paré mu jëlaat dëkk bi bok ci dëkk bi dëkk sanci dem ko sancee ba paré jox ko rakam jox sës rek ci mom muy mam Cheikh Anta borom Darou temir ak gawan jëbël ko dëkk bi bolé boole témir téeméeri donga man mam Cheikh da ca bok ni muy témir donga dëkk bobu nak moy ba tay ci bir kër gi ñu taxaw ak mbolo mi moy kenn ci njabot mam Cheikh Anta nekkoon mën naa wax ne loxoom nday jooram di alaaji maam du Ndiaye Diop xam ne siiw na lool dégg nga ñuy wax Ahmadou Ndiaye Mayoro Ibrahima yaa leen xamal ma xaam Ibrahima ram nga leen tàggoon noonu suñu baa siyaara nañ tey bi siyaara Tuubaa Ahmadou Ndiaye moom mooy Ahmadou Ndiaye mii tey moo nekkoon loxo ndeyjoor maam Cheikh Anta ku mën a wax ci maam Cheikh Anta te waxoo te tuddoo ci El Hadj Moundiaye Diop mën nañoo jàpp ne xibaar yi ndax mos ñu ko tàqalikoo ba nin démé aljana waaw kon mbooloom moom yi ay sëtam ñu andalo mom dembu señ démb señ mu ndjay ñoñu seeni doom ak seeni sët tey ñooy mbooloo mi tay rek ñoñu kenn ginnu leen ndax yoonu mu noonu la baxo yoonu mu da ngay jéblu jébalé la ci lepp nga xamné ci ngir dundu ba ci say ñen andé won ak mag ñi rek lañu andé bu ko defee ne man ma ngi wax ci mbirum fédération bi nga xamné mo lekk lëkkale njabot gi xam ngeen ne gis ngeen ay yees yees ak dolliku yoo xam ne am na ci kër gi yéen waa presse bi bàyyi ngeen xel lool bu baax a baax waaw sopp ko am na ci sopp ko kon li ko waral mooy gannaaw bi kër yi nekkee ay bund kër yu bari te kër gi nekk benn kër muy kër si mu Njaay Jóob xalifa bi maam alaaji alaaji mu Njaay yàlla na fi yàgg te wér sëñ Moodu Sooda mooy jëruñu kër gi yëpp sëñ soo Sooda sëñ Moodu Sooda moom itam jël sëtu kër gi di sëñ Amdi Mustafaa muy jëruñu liggéey bi nekk seen yor seen kàddu yor seen ndaw seen moom tam daa jëlaat la a rafet mooy jëlaat magi kër gi ak ndawi kër gi ak boneen pasif yëpp boole leen ñu nekkaat génn kuréel mooy fédération Miftaahul Manaan Wassoul ñoo ñoom ay jëriñ yoo xam ne ñoom la ñu booleel Baye Laaj saal bokk na ci Baye Abdoulaye Jéey bokk na ci bay Mamoun Jéey bokk na ci sëñ Baaj Sall bokk na ci ak jigéen ñi bay Bada Guèye ak soxna yi nga xam ne ñoom lañ àndal yaa batoro mi da wax léegi ak ñi ñu ko booleel yaa awa baag ñi ñu mel ñoom Baye Moudou mbay Dieye jigéen ñi itam Baye Dieye mi jël seen kàddu moo leen moo leen jiite waaye daal gis nañ ne ak copp ko am na ci diggante daaw ak ren ndax ren ji kër gi ni niñ ko ni berne ni mu ni mu doxee ak mbooloo mi ak positif gi loolu gis na ne yokkute na bu baax a baax te loolu li ko waral mooy ndaw ñi daa am lu nekkoon ci ñoom loo xam ne da doon nelaw ñu yéey leen ci loolu mooy liggéey mooy liggéey suñu tuwaa rek moo fi nekk mag ñi dañuy wax ne koo fi gis rek am na lu muy réccu la ñuy réccu mooy euh, kenn ku ne daar diir bi nga amoon te te mu widd te liggéey ci Sëñ ñoom dañ koy réccu kon ñu ndaw ñi bu ñu tollee ci buntu jamono suñu yittee suñ jamono suñ temps suñu alal suñ lépp ñu jël ko jébbal ko Sëñ Tuubaa jaare ko ci mu bund ak Alaaji Munjaay Jóob loolu tawfeex la ju rëy rëy joo xam ne si ne day ñaan yàlla jëmale ko kanam macha mm-hmm. allah Cheikh Dieye comme ni nga ko waxee Dieye ci yokkute gi loolu moom ma yaakaar naa ne nañ ci DSTV mën nañ ci firnde ndax heure daal bi ñu allah lan ngeen organisation la ba ci diine sax ndax l'islam lépp organisation la leen danaan la boo ko tegee ci nam war a nekk rek boo ci jéngu dara rek lépp day baax instant boobu nag xam-xam ñu toll xam-xam boobu dafa mel ni léegi dañ koy commencé am bu njëkkaan daal daa koo xam day ñëw doonu taalibe ci kër gi bu ñëwee day sol mboobu mu baax dem ci sëriñam ziyaare ko ñaar téeméer jàppale def na lépp léegi nag dañ ne loolu day dakk ñu ndaw ñu ñoo taxaw ci lool ak jigéen ñi ne loolu day dakk léegi kër sëñ bi ñun boole na suñ boole suñ suñuy doole képp ku bokk ci kër sëñ gi dafa am cotisation yoo xam ne Euh, ñaari jundi ak juróom ben téeméer la képp ku ndaw ci kër gi té té te taalibe ci kër gi dañ ko jox ci admi boko joxé moy firné na li nga warloog fédération bi matal nga ko waaye itam lolu ñu bàyyi xel lolu ñepp né ne ñuy lo xel ñepp né lolu siqut ak dara talib ak ak ak sëriñam lañ warloo kenn ku ne la nga warloo sub serigne mom ñun si yoon neeku ci ya ngay xol na ab talib wara doxé bu serigne ma nga dang mom nona waye jëmi fédération mom képp ko bok ci kër gi bu dee nga ñaari junni ak juróom benn téeméer chaque année da joxe. Hmm. bu dee jigéen nga junni ak ñeent téeméer da nga ko joxe chaque année. loolu la ñuy boole man cee màggal moo waral xéewal yaatoo nii moo moo waral déguisement yi rafete nii moo waral bas yi rafete nii moo waral jàmm ji ñu am moo waral itam ñëpp nekk benn ndax ku ne xam ne ne yoonu yoonu murit ber na la bu fekkee ne yoonu murit ber na la bu fekkee ne dana woote ak màggal te bor yi dëyut ñu ñëpp dañuy sëngéem suñ kilifa yi duñu am lu leen gënal ñu ñu duñu am lu ñu gënal waaye jàpp naa ne nii ñuy doxee nii suñ ko doxee fekk at wala ñett at wala ñeenti at ci kanam dañuy am bis boo xam si dana ci mën a màggal ba mu des ba ma ci am yeneen jumtukaay yoo xam si kër gi ñoo koy moom te ci gën a woon nag fas nañ cee ñeme nañ ci te sëriñ si jox nañ ci ndigal te amuñ ci duñ ci dellu gannaaw fas yéene ñoo dox ci loolu incha allahu rabbi macha allah sëriñ Cheikh Dieye euh, comme ci kàddu am solo sa kàddu gu mujj lan ngay ñaanal DSTV ak euh, xam sa diine bu TV. li leen di ñaanal mooy yàlla yokk leen ba ngeen dem ba mel ni média yëpp ci euh, Sénégal yi gën a siiw te yàlla mën na ko lu ko yomb la waaye duñ fàtte ñaanal suñu kilifa yi suñu kanam ñu baax lan ñu ñu yërëm lañ waaye ñun ñoo war a xam suñu bopp bu baax xam ne boo amee kilifa gu lewet yow yaay jéem a ñun ñoti ndax ñun dañoo lu bare bare loo xam si dañu ci xaw loolu lañ bëgg a dab dabaatal li seen tubaa naan dab dabaatal ñun daw ñi dañoo war a dab dabaata li ñu rawoon lu bari ci kër gi te loolu nag taxaw nañ ci incha allah rabbi ku ñu ci woo dañuy dem ku ñu wut da nga dem taxaw ne mi ngi rox suñu pass pass wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu DSTV ñu ngi lay ñaan nga abonné nga bëss ko sa notification lool moy tax wi do mu duggal rek nga man ci ju leen fàtte aimer partager jaa ngeen jëf ani ba ibliza fi bahri ma ينبا